Euh, jërëjëfati mbokk yi seetaan déglu euh, ñu daal di leen seen complement alimentaire bii nga xam ne mooy Faforma Faforma complément alimentaire la boo xam ni dafay defaraat saw yaram xam nga ne yaram saa su ne dafay bëgg lu ko noddanti lu ko gunge lu ko tëggaat lu ko taxaw lu ko jàppale ba mu am benn taxawaay bu am solo ba lu dugg ci lu ne ci moom su dee njariñ mu téye ko su dee luy lore mu dàq ko mu génn dàqin woowee mooy tax nit gis la xam ne kat yaa ngi ci santé bu baax li koy firndeel nag mooy bii complement alimentaire boo xam ne ni nga koy jëlee min ngeen ko mooy da ngay jël benn kaas bu mag soo demee bay tëdd nga jël gu mag ci fa bi sotti ci def ci ndox ci kaas bi yëngal ba mu jaxasoo mu jox la genre café au nga daal di ko naan jox la maro bu rafet. un kilo deux cent la mu ngi jar huit mille francs fépp fooy dégg